soxna Jéema Jóob way fi ngeen sewey ñoo ma jëmal boppam soxna Jaara moo di ba mi des di feeñaat wa de foo ndaw soxna Jaara bu génn soxna Jaara kon ñu يلا ما بدك يلا يلا يا مريم بسجارة الليل dikkanan tey gërëm di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaar dikkanan tey gërëm di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaar soxna jaar bigal nga at li nawur naa yaa nu jox Cheikh Bamba jaaraama jaara jaaratulley mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara soxna baaleek maam bu samba ne jaara am nga tawfiix ku gëm fabal tudde jaara jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur télévision Mafatihul Bichri nuyu leen siyaar leen dalal leen ci seen télévision islamique au service de Kër Xaadim Rasoul di siyaare baax mboolem ko xee ne yaa ngi nuy topp ci télévision bi di ci jiital kan te baaxoo jiital Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar yàlla na fi yàgg lool tànd ak wér saa yu naalee ak sagoom lëggéey ko ba mu mat sëkk te ma ànd koog taalibe Serigne Touba di ko jox wàcc waaye mu joxal ñu ko ku caalawloo ci Serigne Touba Khadim Rasoul ak noo ca bokke tey nag ñoo ngi ci région de Diourbel waaye bi ñu ñëwee ci région de Diourbel ñu ñëw ci département Bambey waaye bi ñu ñëwee ci département Bambey ñu ñëw ci kër ki nga xam ne mooy kër Cheikh Madal ndax bu nu ñëwee ci ëttub Serigne Moustapha Mbakke moom Cheikh Madal Bachir ci ëttub Cheikh Madal Bachir la ñu ñëw. waaye kan la ñu fi fekk si ki nga xamante ne bii mooy sëriñ Abdul Hakim moom sëriñ Moustapha moom Cheikh Madal Bachir xam ngeen ne liggéey bi mu baaxoo liggéey ànd ko ak fédération daahira Maam jara maamam ju baax jooju nga xam ne moo nekk Poroxaan te nag bàyyam bu baax ba Cheikh Moustapha moom Cheikh Madal Bachir def ci liggéey bu rëy liggéey boobu mooy saa yoo duggee Poroxaan sa xel day daal di daw ci jàmbaar jooju di Serigne Moustapha Mbakke waajuram wa moom Cheikh Madal Bachir ci liggéey bu rëy ba mu fa liggéey taxawoo ko maamam ju baax ja soxna jaara buso waaye nag moom miit mujje wut puso bi mu réer ndax kër gi nga xam ne waajuram mu baax wa Serigne Moustapha Mbakke moom Cheikh Madal Bachir moo ko sancoon moo ko fi daaloon moom sëriñ Abdul Hakim ngir mu liggéeyal fi maamam waaye tey jii fédération bi mu àndal di fédération Soxna Jaara Bousso seen ndaje bi nuy amal at mu jot tey ji rekk la nu fas yéene ànd ak Serigne Abdoul Hakim liggéey boobu télévision bi fas yéene mboolem lu fi ruus mu wan leen ko Serigne Mourtala Guèye nekk ci micro bi féggoo ak Serigne Mor Ñaa ci caméra bi nga xam ne tey ci ëttam la ñëw ndax nag taalibe la ci biir kër gi Serigne Abdoul Hakim mi nu fekk si mooy ab sëriñam kon moor noo ngi lay siyaar ci bis bi xam naa maase rek ànd dem euh, gis sëriñ bi waxtaan ak moom ci sababab lii nga xëye ne moom la woote tey waaye nag bu nu waxtaanee moom waajal nag ngoon nu ànd ak moom ci cérémonie officielle ba kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nga tee waaye nga tee faral nga tee foo nga jëlu ma bi dee jëlal yow. ak ay jërëjëf mbokk yi kon noo ngi taxaw ak sëriñ Babacar mi nga xam ni lépp la ci ñun waaye yàlla dogal moom mooy coordonnateuru fédération Daahira Maam Jaara Bousso ànd liggéey boobu ak Serigne Abdoul Hakim mi ma doon wax léegi kon Serigne Babacar télévision Mafatihul Bichri mi ngi lay dalal fa yéene laa jox microm nga dimbali ñu tuuti ci leeral nu ana sabab woote bi tey aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli wa wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsani ila yawmi din aw naka yaa muhinu wa bika nastahin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki julit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam di ko ci sant yi di ñaan sama borom dolli jàmm bis bi bi bisab sant yàlla la bés la boo xam ne bii waa fédération Daïra Mame Diarra Bousso bu département Bambey di toll ci quatre-vingt-dix-sept daïra ñoom ñoo ko sabab euh, sabab bi nag li ko waral mooy liggéey bu rëy bi nga xam ne ñu ngi koy maam jaara Diarra euh, di fi bàyyi ko di dem Porokhane bu fekk Cheikh Modou Mountakha di ko jibbal addiya ji euh, bés la boo xam ne bii Cheikh Sëñ Abdou Hakim Mbacké mi nga xam ne mooy sunu jëwriñ sunu digganteeg Serigne Mountakha nekkal fi nga wote sëriñ Bassirou Mbacke gépp boot mboolem fédération bi moom ma wax ne képp ku liggéeyal sëriñ Tuubaa ba noppi war nañ laa delloo njukkal njukkal loolu nag moo tax ñuy def ngont maam jaara ren ji yàlla sunu borom dogal mu toll ci ñetteelu jataay muy ñetteelu édition boo xam ne bi ñu ngi koy def benn bu njëkk bi fii lañ ko defee fi nga taxaw ci buntu kër sëriñ bi jàkkaarloo kër sëriñ bi maanaam booba ñetti junniy doomu adama ñoo ci bokkoon waaye daaw mooy ñaareelu ngontu maam jaara daaw juróom-benni junniy maam jaara astafurla daaw ñetti junniy maam jaara ak juróom-ñaari téeméeri maam jaara bokkoon na ci wala boog nga wax ne ñeenti junniy maam jaara euh, ren jii juróomi junni ci ay membre yoo xam ne ñoo àndandoo di liggéeyal maam jaara Bousso ñoo am ci 97 daayira yi ren biñ demee Poroxaan jébbal nañu soxna euh, sëriñ bi muy Cheikh Modou Mountakha fukki millions yoo xam ne lépp dañ ko jënd ay kati Maam Jaara daaw bañ jógee ci ngont mi gis nañu ne sëriñ Mouhamadou Mountakha ci boppam moo bàyyi koo njaareem ñëwal boppam fekk si waa Bambey fekk fii sëñ Abdou Akim mbake wax ci kaddu boppam ne waa Bambey jaral nañ ko mu jógee njaareem ñëw fekki sinu waaye sëñ Abdou Akim Mbacké jaral nañ ko mu jógee njaareem ñëw fekk ndax doxeenu fédération bi nga xam ne moom la taxawal daf koo ñor ñor gi mu ko ñor nag liggéeyal maam da koo ñor te ku liggéeyal soxna jaar bu sa ñor rek ñor nga Serigne Mountakha yàlla su borom dogal it ñu am ñetti jëwriñ yoo xam ne kenn ku ci nekk liggéeyal Serigne Touba rek moo la ñor kii ci jëkk mooy soxna Ndeye Wade mi nga xam ne mooy présidente bi nga xam ne moo jiite mboolem fédération bi ka ca topp mooy soxna Adama Tall mi nga xam ne ko xam xam ne léppam Cayenne la te daayira Maam Jaara bi nga xam ne mu jëkk am ci département bi Cayenne la Cayenne la sosoo ki ci topp mooy soxna Aminta Mbacke mi nga xam ne mooy euh, doomi Cheikh Modou Mountakha mu jox ko sëñ Abdou Akim Mbacke mi mu di ab sëriñam ñoom ñëpp nag ñu nekk ay taalibe nekk ay jëwriñ boot nag juróom-ñeent fukki daayira ak juróom-ñaar ñuy ànd di liggéeyal sëriñ bi kon tey bu da bu euh, télévision Fatul Bichri defee délégation bu takku ñëw bëgg ñëw couvrir suñu événement bi suñu xol da ciy sedd suñu xel da ciy da ciy dal ndax li ko waral kenn ku ne xam ne ma faatuwul bisri euh, maanaam day xasida goo xam ne gii ko ko tudd rek tudd maanaam mbég mi muy sëriñ Basiru ndax bisri moom mooy mbég te sëriñ Basiru mooy mbég tim yoonu murit ak la ca toppi tamit ku tudd ma faatuwul bisri tudd rajab rajab ku ko tudd yi tudd sëriñ Falilu mbake mi nga xam ne yàlla sunu borom dogal na mooy soppeeb ñëpp waaye ku tudd ma faatul bisri tamit nag di nga tudd Serigne Fallou Mbacke mi nga xam ne Serigne Bassirou Mbacke moo ko jur te mu ñëw barki démb fii ci Bambey tegal suñu premier peeru kër Soxna Jaara bi nga xam ne moo nekk deuxième këru Soxna Jaara ci Sénégal gépp loolu sant yàlla la kon ñu ngi leen di sant yéen ñi nga xam ne yéenay délégation bi waa Fatul Bisri yebal ngeen dikk ànd ak ñun liggéey bi nga xam ne ko ci laal ku nekk rek sa aju mën na cee faju àddina ak alaxira allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ñu bàyyi foofu suñuy wàccee foofu suñuy kaddu ba ba ngeen jotaat ñu beneen yoon incha allah. jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar moom mi nag nu fàttali leen ne leen war naa liggéeyal Cheikh Amadou Bachir ndax euh, ci ëttam euh, mbooleem lu mu bokk rek ci ëttub Cheikh Amadou Bachir lañ ko xamee. Mhm. rakk la ci Serigne Allaka. Euh, doom la ci Baye Allaka mi nga xamee ne mhm. moo daan dawalal si Cheikh Modou Bachir mhm. kon boo nekkee ci wetu Serigne Abdou loolu war na mhm. noo ngi ñaan suñu boroom dëgëral leen kon ni nga ko waxee rek euh, sëñ Mor nu dugg ci biir gis sëñ bi kon te génn su ko defee waajal ñun ñëpp nag dem ca tànt ba incha allah alhamdulilah jërëjëf auzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah sayyiduna wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman jërëjëfe sëriñ Tuubaa mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk téléspectateur télévision Mafatihul Bichri noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar nuyoo buñ leen baaxoo defal mooy di ca jiital sëriñ Tuubaa Cheikh Sidil Muxtaar tey ñaan saa borom yàggal ko fi lool te wéral ko saa yu naa lay yeggale kook sagoom te ànd kook taalibe yépp di siyaare bu baax tey ki nu nekk ci ëttam mooy sëriñ Muntaqa Mbàkke moom Cheikh Modal Bachir mi nga ne moo toogi jotaayub Cheikh Modal Bachir di ñaan suñu borom guddal aw fanam te wéral ko waaye bu ngeen gisee suñu toogaay bi ak kilifa gi nga xam ne moom la toogal tey ngeen xam ne noo ngi ci ëttub sëriñ Moustapha Mbàkke moom Cheikh Modal Bachir toog ak doom ju baax jii nga xam ne ab lëggéeyam kenn dootu ko fàtte muy Cheikh Abdul Hakim Bambey dëkk bii di Bambey fi la ñu nekk ci kër waa waajuram mu tedd wi di wàcc bis bii nga xam ne ci lay liggéeyal maamam ju tedd ja soxna jaara buso te mu naal ko di ko def te du tey dong muy at yu bari yu nu génn yoo xam ni mu ngi ciy liggéey liggéey bu rëy moo ak taalibe yi ko sëriñ Touba booleel xam naa nu yëkkati micro kon jox koo xamee ne du gan ci ñun muy sëriñ Abdoulahi Diakhoumpa su ko defee moom dana gaaral nu dogg a wéyale liggéey bi kon nu maase déglu ko aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmaani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ bi noo ngi leen di nuyu yéen yi nga xam ne yéen a fi jëmmal waa Bichri TV ci ëtt bi nga xam ne kër sëñ la di këru lislaam Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir def ko fi doon ci liggéeyal boroomam ci kër Cheikh Mouhamadul Bachir indi fi doomam ji mu ne fi muy sëriñ Abdul Hakim yal na ko fi yàlla yàggal lool te may ko ak wér léegi laay wax sëñ Daouda mi toog ci sawet xam ne kenn la ci jëwriñi kër gi ne ko sëñ Abdul Hakim mu jëwu ko mu réer ndax sëñ Moustapha bàyyiwu fi woon lii nii kër gi mel bàyyiwu ko fi woon nii mbooloo mi toll it bàyyiwu ko fi woon waaye ci barkeb liggéeyam sunu borom dimbali na ko ba ki ñi ko bàyyee yaafu suñ ci li mu leen bàyyee sëñ Moustapha sunu boroom da ko teel a dimbali ci bi sëñ Bassirou bàyyi ko dafa waxoon ne ki fi jóge noog moom àndoon di jëf jëf na baal nu fi naal na baal nu fi yéene na bàyyil nu fi lim jëf baal nu fi dinaa ko ko sàmmal aaral ko ko lim naal baal nu fi danaa ko ko mottalil lim yéene it danaa ko ko defal kon moom wàcc na defal na sëñ Basiru loolu mu waxoon bàyyi fi ak njaboot njaboot gi ci seen kattan ci li leen yàlla man loo ñoom it ñu ngi jëf di sëñ Moustapha Baye yokk nañ ko sëñ Abdul Hakim mi di kenn ci kon kenn yooyu kenn lu fi sëñ Moustapha samp te buñ ko waxee dañuy jël seere ji teg ko ci kaw seere su way juróom bi mu fi mujjee yàggut muy Serigne Isaaxa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ànd nañu ñëw fi mu gis yokkute gi fi nekk gis samp bi fi sëñ Moustapha sampoon ne ko sëñ Abdul Hakim rokkose mbooloo mi ni mu leen nose nos leen ci jikko téye leen ci pas-pas sëñ Isaaxa lam ca teg mooy Abdul Hakim maa ngi lay seereel na sa baay xolam sedd na tey te loolu waxu ko ngir bakkan waaye dafa am lu mu gis bi mu ko gisee ba noppi xam ne nii la demee mu yëkkati kàddoom tudd ko sëñ Abdou Hakim mii fi ne nag lislaam la fi nekkal ci biir lislaam sëñ Touba la fi nekkal ci biir sëñ Touba njaboot Cheikh Mouhamadul Bachir gépp la fi nekkal yore liggéeyub sëñ Moustapha ndax lii tax ngeen teew fi tey muy daa daaira maam jaare yi sëñ Moustapha la yàlla dimbali ci yéeneem ju sell ak bëgg a liggéeyal sëñ Touba ci lislaam bi mu yëkkatee liggéey bi sunu boroom seetlu ko xam ne liggéey bi ak sell rekk ko lal moo tax ñëpp wusi ko ki mu yilif ci biir këram ak ki mu yiliful tang dib jullit te bëgg lu baax ñépp ko wisi loolu moo tax tey barab bi ngeen fekk mu mel nii mu mel lu daje fi tey ngir soxna jaara buso mi nga xam ne mooy ndey ñépp mooy ndey mag mooy ndey gone mooy ndey góor mooy ndey jigéen loolu sëñ Maam Mor moom sëñ Mat Dem bi mu ñëwee Poroxaan siyaare si ko xasida gi mu def ci buntu barabu soxna jaara loolu la ko wax ummal muridiina al kiraami kibaarihim wa sigaarihim wa shiibi wa subbaani ñoo ñëpp mooy seen kilifa te la ko ko may mooy liggéey bu sell bu ko sun boroom nangul kon bu ngeen ñëwee tey fekk ñu ci ëtt bi am naa kàddu gi danoo danoo danoo bett Euh, lu ci lu ci dëng lu ne mbetteel ga tax mu dëng waaye amoon nañ yéene daal wax loo xam ne dana jariñ amoon nañ yéene wax loo xam ne dana fàttali waaye gannaaw sëriñ bi toog na nag moom mi nga xam ne moo fi ne ñu di ko liggéeyloo fa ne ay kàddoom dana mën a yóbbaale sunu yos kàddu jëwriñ yi fi nekkit dana mën a yóbbaale sunu yos loolu la ñu fi indee sax tey ngir won la ne liggéey bu yaatu la moo tax bi mu amee sëñ Abdul Hakim woolu ma ne ma naa jóge poroxaan fekk si ko fii ngir nu yaatal liggéey bi ndax liggéey bi barab bu poroxaan ba ko tax a jóg muy daaray maam jaara ja kon dana baax ku fa nekk te yor fa dara di fa yëngu nga ñëw fi ngir lafay xew ñii fi ne nga xam ne seen liggéey yi bokk na ci liggéey yay doxal barab ba di ko yëwénal ñu xam ne barab ba loola moo fa ne loolu moo tax sëñ Abdul Hakim jox ma ndigalul tey naa jóge poroxaan fekk su ko fi loolu moo ma indi kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm yéen Bichri TV di ñaan suñu borom dëgëral leen ndax liggéey bi ngeen di def yaatu na màggalu Poroxaan def ngeen ci liggéey am njariñ ci conférence yi Serigne Sakho doon deflu ci pénc mi seen seen matuwaay yëpp jël ngeen ko ngir liggéeyal soxna si liggéey bi nag sëñ Moustapha mooy jëwriñ ji waaye moom ñëpp a ko seq jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullah bokki taalibe yi fi teew bokki Bichri TV. ñoo ngi leen di nuyu lu bëri kenn ku nekk yi turam ak santam di wax alhamdulilahi rabbi alamin eh, ci sant yàlla bi nga xamee ni yàlla andi nañu fii ci ndigalul Cheikh Moustapha bi sëñ Bassirou mu liggéey loonu fi te nurul ni ni mu ko bëggee woon noo ko ñu defee loolu noo ngi sant sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem eh, ni ngeen ko waxee dañuy dàkk ak bëggam rek jàpp nañ ne ci liggéeyam yi mujj na mooy liggéeyal soxna Jaara Buso ci Poroxaan ci ndigalal waajuram Cheikh Amadou Bachir ci ndigalal Xaadim Rasul xam gi ñu xam loolu nag moo tax euh, kenn ku nekk gox ba nga féete nga sof ca liggéeyam ba ngir di ko yaatal mu jëm kanam ba ni mu ko bëggee mu amee ko ne moo sabab bi ñu bi nga xamee nekk nañ fii itam loolu moo sabab ñu sàkku ci e, département bi yëpp def lu mel ni fédération ngir e, daayira maam jaara yi nekk ci département bi yëpp ak yi feneen ndax am na ci daayira yoo xam ne jóge nañ ba Ndakaaru e, boole seen jëf ngir muy jaar foo xam ni dina àgg fa ñu ko bëggee ndax dañoo seetlu ni bëri waa bëri woon na ay daayira yoo xam ne ña ngi sonn lool ci bëgg sëriñ bi lool bëgg soxna jaar lool di ko liggéeyal te xamuñu nu ñuy def ba seen bu liggéey àgg fa mu war a àgg eh, léeg-léeg ñu dajeeg nit mu nax mu nax leen léeg ñu wóolu nit itam ba jox ko seen bu liggéey te du àgg fa mu war a àgg ngir bañ yooyu yëpp am na tax eh, ma ne nañ ko def fédération fédération daayira Maam Jaara rek eh, département Bambey ñu ngi toll ci juróom-ñeent fukki daayira ci jamono ji ñu toll euh, yàlla dogal na yàggut waaye bokk nañ ci juróom ñi nga xam ne sëñ Mouta wax na ne ñoo jiitu ci ci ci ci ci àdduna bépp di réew ma bitim réew juróomi daayira yi nga xam ne ñoo ci ñoo ci raw liggéey yàlla dogal na département Bambey bokk nañ ci te liggéey bi nga toll rek ci ñetti ñetti ñetti at yàlla dimbal nañu ba euh, ren ji ci am nañ membre ci toll ci juróomi junni membre euh, carte yi toll ci fukki million loolu nag ñoo ñaan at yu néew rek lañu bëgg mooy mooy mooy ne ci kanam mbaa ñu bokk ci ñi ne ci kanam waaw loolu nag ñu koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy fas yéene rek liggéeyal ko sunu sunu sëriñ ba nga xam ne dara ñëru ko dul ak taal bi ak liggéey sëñ Tuubaa euh, ci ci ci royteefu boobu ñu amuñu benn royteef bu ñuy roy buru sëriñ bi rek waaw am lu jamono soppiku ko ak lu àdduna soppiku soppiku ak lum euh, murit gu bees xew ak mbaa mbaa pësef yu bees man sama pësef maa ngi dugal ci biir pësefam rek incha allah du ma ci du ma ci du ma ci du soppi dara ku ma diggal itam doo soppi dara ci ci la ci la ci lañ nekk ni ma ko daan waxee itam dafa daan wax ne liggéey bi may liggéey soxna Jaara ngeen ma jox seen addiya ma def ko ci def euh, sàng ci benn dërëm ak dajji gaar ak jàmbur laa yemale waaw loolu itam noo ngi koy noo koy noo ngi koy yeesal noo ngi leen xamal daal lépp loo xam ne jaar na ci ñun te jëm ci moom jaar incha allah dina àgg na mu war a àggee kon nag jërë ngeen jëf sant nañ ñëpp gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw kay jërë ngeen jëf euh, sëriñ bi noo ngi dollee sant yàlla di la sant bu baax ci sa kàddu yu am solo yi nga nu jotal ngir nu waaje ko liggéey bi xanaa di sant bu baax it sëriñ Ablaye moom itam te dugal ko ci biir cant gi nuy sant sëriñ bi rek su ko defee di wax mbokk téléspectateurs yi ne nii la ñu xëyee fii ci Bambey ci kanamu sunu sang bu baax bii di sëriñ Abdul Hakim moom sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Ahmad al Bachir nu waaj ci kanam tuuti rek fas yéene yegg nag fa nga xamee ne fa la liggéey bay xawe mu ànd kook fédération yi ni mu ko waxee léegi nu wan leen ab liggéeyam wan leen li nga xamante ni bi moom la ñu fas yéene nas ngir wa euh, jébbal ko sunu jàmbaar jooju sëriñ Muntaqa Mbacke moom Cheikh Ahmad al Bachir mu def ko ci liggéeyub soxna Jaara Bousso kon nu maase tàllal sëriñ bi ñaanal nu waaje ko soxna jéema jóg way fi nga ñi sewey ñoo ma ba mi desi di teeram wa de foo ndaw soxna jaara bu génn soxna jaara comme ni te waaye nga te ma fi des yàlla